ñoo ngi ci jël bi di waste time dañu bëgg am sunshine. Yeah. yorul tax ñu jiñ ko sàcc dañ ko xeeb bañ ko nawloo lu mu wax ñu jàppee kàcc tam ko dëmm bëgg ko nawloo toroxal ko tott jaay ko doole foog na yàlla fekkewul misaalu am ak ñàkk la boole dina àtte fàttewul jàlle wéet ak ñàkk yaakaar mënatul sàmm njabootam ana tey ñi ko war a taxaw aar mu dundaat jàmm ci bëtam dem nañu moomaat seen bopp kenn du frenku laayu seen xeeb seen wàll ci li ñu bokk ana xeexu ak ak yelleef su ma amoon li la yàlla may day du toog di yuuxu may day kenn du ma jëy bi wax u bi may day ñaan ci yàlla bañ wéy fi àdduna dara du wéy ci démb ak tey ngi ñëw te ko yoon bi mu war a aw gisatul dañ ko sànk injustice di nga xam ko teg ci tànk ana diine ana dëgg ana yoon ana gëdd amnesty maa la am justice life gero baa ngi gën gis àll baa ñaata yoon lañ fi jiiñ innocent crime ñoo ci jël bi di waste time dañu bëgg a am sunshine baal ma baal ma dimbalin ma baal ma yaa ma tooñ ma baalu la ngir bañ nga gaañ ma jooy na nee na li muy dund tiis na sonn ma gis nga li ma yan na néew doole tax na ma tooñ ma gaañ ma doole doj ma système bi ma kenn du def balaat ma atta dëgg bëgg nañu justice sonn nañu a jële ci li lañu bëgg dara am justice alors euh, bu ngeen ko déggee rek ngeen xam ni jeudi jot na 11h jot na bu ko defee trio bi euh, dikk euh, ñu waxtaanee ak justice ak tolluwaayu réew mi alors ñoo leen ko digoon moo tax itam Euh, jox nañu leen ko njaay moo doon ndékki moom lañu doon xaar bu ko defee mu ndékki euh, ñu xaar ko mu ndékki moom sax nee na ñu xaar ko nii pour mu ndékki ba pare quoi déggoo leen xaar leen ma ñëw xaar leen. lañu nara am justice ñaata yoon lañ fi jiiñ innocent crime ci yarul tax ñu jiñ ko sàcc dañ ko xeeb bañ ko nawloo lu mu wax ñu jàppee kàcc tam ko dëmm bëgg ko nawloo toroxal ko tott jaay ko doole foog na yàlla fekkewul misaalu am ak ñàkk la boole dina àtte fàttewul jàlle wéet ak ñàkk yaakaar mënatul sàmm njabootam ana tey ñi ko war a taxawu aar mu dundaat jàmm ci bëtam dem nañu moomaat seen bopp kenn du frenku laayu seen xeef seen wàll ci li ñu bokk ana xeexu àq ak yelleef ma amoon li la yàlla may day duma toog di yuuxu may day kenn du ma jëy lamiñ bi wax u teeg bi di wéy day amul ci démb ak tey su baa ngi ñëw te day fay doxoon ko yoon bi mu war a aw gisatul dañ ko sànk injustice di lu ñaaw tey nga xam ko tekki tànk ana diine ana dëgg deka njaay laa demoon defaral ko kaskam yi xam nga man tubaarkal la aw technicien la moom ni may euh, kii nii benn instant tamit noonu laay nekkee professeur am xam nga noonu la dama ñëw ne ko xam nga voilà quoi xam nga da ngay def nii voilà quoi xam nga def nii bés kii bi ñëw ko xam nga dem régler Fatima lan moo tax njóobee ni mën a sóob non non non dem régler situation bi ñëwaat quoi xam nga l'homme situation quand même Fatima sa nekku ci waaw na rek yaa ngi dégg nee na lan moo tax jóobee ni non non Fatima eh non xoolal xoolal xoolal atteer rek atteer rek waaw dama ñëw fekk leen ngeen ne ci ay problème ngeen ne ay difficulté ma ñëw régler situation bi loolu demeewul noonu loo wax li am rek yàlla doo wax am rek <laughs> nangeen ngeen def na ngeen def. waa di Melo ñu ngi lay nuyu di amaat mbégte teewaat fii ci studio Walf FM. di am yaakaar ne liñ fi nar a waxtaan yëpp dina jëriñ képp koo xam ne yaa ngi ñuy bàyyi xel. Mm-hmm. di la nuyu di nuyu Fatima di nuyu Rahim di nuyu auditrice ak auditeur Walf FM yëpp. fépp fu ñu mën nekk ci biir réew mi ak waa bitim réew. waaw ñu ngi leen di bëggee waa bitim réew tam ñoom kenn gënu leen bëgg émission bi dañ koy xaar mhm. ñu ngi leen di bëggee bu baax jërëjëf Ndiaye alors ki dee naka mu ngi si jàmm baax bu baax ah yi ngay mbir yi nuyu naa la <laughs> nuyu mbokk auditeurs yi teewlu ak safoo Leeru Jamono gërëm leen mhm. euh, mhm. euh, jëla micro boobu ca teg ko noonu rek waaw waaw kay waaw kay ay ci waxal ma dégg. ma ne nuyuwaat rek euh, mbokk auditeurs yi. waaw comme chaque jeudi dañuy ñëwaat rek di waxtaan lépp lu ñeel yoon. waaw nuyu Rahim loo ci digital bi ndax euh, moo ci jàpp jàppale ci ba mu am doole. waaw gërëm ko bu baax moom it. waaw Rahim Lo. Hmm. moom ñu ngi koy bëggee bu baax alors Fadima tey lan lañ dara waxtaanee. tey nag euh, mode d' aménagement des peines maanaam. Euh, mhm. ci ñeel liberté. Mhm. da ngay dégg ñu naan liberté provisoire. ak libération conditionnelle. grâce yenn yi nga xam ne dañ koy faral di dégg. ci lu ñeel liberté. Mhm. te xamuñu lan lay signifier. xamuñu ak sax la tax ñu koy def. ak nañu koy defee. voilà alors tey loolee la ñu dara waxtaanee ci 100 pour cent justice Pape Ndiaye. mi ngi noonu te ku ñu bëgg a ah. toppandi rek mën na dem euh, ci YouTube bi. waaw ah. Walf FM 99 point 0. waaw ah, bu ko defee ngay ñu jokkalante bu ko defee ngay déglu di seetaan. nga doublé sa neex-neex. <laughs> Fatima alors Ndiaye euh, tey ñu dara waxtaanee. waaw neex-neexu xale bi ngay tudd ci rajo bi. non waxuma neex-neexu xale bi. yow yow Moustapha Diop dina la mise à pied yow. dama ni. yow sa mise taxaw na. am amoo lay. làmmiñ du lekk morom bi te ñorul Pape Ndiaye. dama ni kuy déglu bu la neexee ngay déglu di seetaan. ma ni la nga double say neex-neex. kooku may def rapport jox ko Moustapha Diop. waa rapport kay day ànd ak preuve. yow ko témoin preuve la. ni. am naa ñaari témoin. non non xam nga xam nga ci yoon ci wàllum yoon en droit le témoignage est boo xam dañ koo ger nag. ger kooku buñ ko jàppee la lañ koy tëj. ana preuve ger bi. ana preuve mooy nga ger bi nga ger nii rek. toog en direct di geraate maanaam man ma wax sama wax nga nga def diffamation nga dëpp samay wax. déedéet dama laa tekkil wax ji rek. tekki woo ko de dama la ni. <laughs> ah Fatima auditrice yaa ngi dégg war ngaa toog ci télé bi ci xaw ma xolam naan télé bi sax ci rajo bi di tudd dégg nga maam. non dama ni non Ndiaye. boobu dee sécurité bi bu dee ndekki bi dafa kii dama ni bu fekkee yaa ngi déglu am nga possibilité am ñaari neex-neex. Mm. maanaam neex-neexu déglu ak neex-neexu seetaan. Mm-hmm. waaw di seetaan di déglu. nga mm-hmm. duble say neex-neex. Mm-hmm. waaw loolu laa wax. nga duble say neex-neex. fi ñu toll nii def nga li juriste yi di tuddee cumul d' infraction yaa ngi gën a dugal sa bopp defaat nga beneen di délit encore dolli ci muy cumul d' infraction muy ban fil noonu tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi vous avez le silence droit de garder le silence vous avez le droit de garder le silence kon d' accord silence naa tout ce que vous direz pourra retenu contre vous. waaw pourra être retenu contre vous. waaw ah. <laughs> kon. ah moo gën de. <laughs> Ndiaye noppi naa waaw comme ni ko Fatima waxee tey dañuy ñëw ci yi nga xamante ne. Euh, mode d' aménagement peine yi ak mesure de libération yi maanaam nit ki nga xamante ne mi ngi kaso waaw ah. yoon yi nga xamante ne moom la ko loi bi may pour que mu mën a génn kaso ok moo xam détenu bi nga nekk bi nekk kaso di ñu déglu wala mm-hmm. kii fi mbokkam nekk kaso mu bëgg koo génne xamul ban yoon la war a mën a jaar mm-hmm. yoon yi bëri mm-hmm. liberté provisoire mi ngi fi libération conditionnelle mi ngi fi contrôle judiciaire mi ngi fi grâce présidentielle mi ngi fi amnistie mi ngi fi ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bëree bëri ok léegi yooyu yëpp tey dañ ñu ko bëgg a faram fàcceel ñu ko voilà wax ñu bu nekk njëriñam ak mooy lan waaw bi nga xamante ni moom la ñuy njëkkee comme sans plus tarder. waxtu waa ngi dem mooy liberté provisoire. liberté provisoire provisoire loolu mooy. mooy bàyyib ndégandiku. bàyyib ndégandiku. waaw boobu nag moom. Euh, loi bi dafa ne la liberté provisoire peut être demandée à toutes les étapes de la procédure. toutes les maanaam ñëpp am droit laaj ko. Mhm. fu dossier bi toll rek mën ngaa ñaan liberté provisoire. ok euh, liberté provisoire nag dafa am ay conditions yoo xam ne moom la ci di dajale pour ñu may la ko. waaw mooy bàyyib ndégandiku. waaw il faut que la personne soit régulièrement domiciliée maanaam nga am adresse fixe ba fu la yoon soxlaa mën la indil convocation bàyyi bi ñu lay bàyyi wala bañ a indi lu ñuy wax trouble à l'ordre public. trouble à l'ordre public. bàyyi bi ñu lay bàyyi bañ a salfaañe kaaraange réew mi. Mhm. lu mel ni nga def dara euh, nit ñi war a dal sa kaw ñëw di fayu ak yooyu. bàyyi bi ñu lay bàyyi tam war a bañ a indi lu ñuy wax nation de témoin loolu mooy waxuma subordination de nation de témoin subornation waaw de témoin mooy déggoo boo xam ne dafa war a am sa diggante ak seede yi war a ñëw ci procès bi pour atte waaw lépp loo xam ne day yàq enquête bi daal donc lii mooy mhm. les garanties de représentation en justice il faut nit ki am ko pour que ñu mën koo may LP LP mooy liberté provisoire liberté provisoire waaw liberté provisoire mooy bàyyam ndëggu ndëggu bàyyam ndëggu ndëggu procureur daf koy joxe mhm. daf koy joxe Mhm. mais juge bu la ko mayee. Mhm. procureur bañ doo génn. foofu nag moom dafa bokk ci pouvoir exorbitant du procureur. ok xam nga procureur moom yàlla bu ndaw la biir tribunal Fatima. Mhm. waaw procureur. bu ndaw la biir tribunal. ah procureur moom moom moom moom xam naa loolu dinañ ko def tem. waaw ñu xam ñoom ñëpp seen ay pouvoir ñoom ñëpp. Eh, a waaw loolu est-ce que duñ ko def thème waxtaan ñu xam ñoom ñëpp seen ay rôle ak kon bii di ñëw bii di ñëw ñu ñëw ko ñu waxtaan kan mooy procureur lan mooy ay pouvoir am ak fan la pouvoir am yem ñu dugg ñu dugg tribunal rek bii di ñëw kon ñu ñu ñu ñu jàngat ko ñu dugg tribunal waaw liberté provisoire melo bu ñu mhm. koy amal ci yan anam lañ koy amale ndax daf ciy gis ñoo xam ne dañuy euh, déposer liberté provisoire pap waaye duñ leen ko nangul waaw maanaam bu fekkee condition yi réunir uñ ko wala dara wala am na ci ñenn nag ñoo xam ne dañ leen di dégg wala sax ay kilifa bu dee demandé nañ liberté provisoire mhm. ñoom maanaam seen liberté moom euh, officielle lay doon dañuy ñibbi benn yoon ndax mbir mi du yënguwaat différence entre ñi nga xam ne dañ leen dañuy régité seen euh, liberté provisoire ak ñi nga xam ne dañ leen a may ñu génn bu ko defee ñu ñibbi benn yoon mbir ma jeex d'accord ma ñambaasaale ci itam euh, bu mhm. fekkee liberté provisoire kañ nga ko mën a am cest diir li may wax mooy Mohamed ñu ngi lay ziar bu fekkee dañ laa jugé dóor la peine ba pare nga mën a laaj liberté provisoire wala buñ la jugé gul mën nga ko laaj buñ la atteegul nga mën a laaj liberté provisoire bu ah. fekkente ne atte nañ la ba pare ah. yeneen yi nga mën a jaar ci la ñuy ñëw léegi ah, mooy libération conditionnelle la nag ñoom ñoom seen ok kon Fatima mën nga répondre question Fatima waaw léegi kon liberté provisoire loolu la aju am na ci ñoo xamante ne nag mën nañu dajale toutes les conditions requises ba pare ñu bañal leen ko mm-hmm. mais loolu bu amee ki ñu ko bañal mm-hmm. mën na def recours def recours donc nit ku képp koo xamante ni demande nga liberté provisoire ñu rejeté ko benn yoon bul découragé bul xaddi. bul xaddi waaw mën nga ñëw dugalaat deuxième fois dugalaat troisième fois mën nga ko dugal mille fois. ok juge bi di bañ mille fois ngay dugal mille fois di demandé. di demandé rek Ah, demandé am na fay wala amul fay. déedéet amul fay. amul fay déedéet. ok amul fay. kan moo ko a def sa a defaral. waaw avocat mën na mën na jaare sa avocat bala neexee mën nga ko jël eh, kiiwee sa avocat xam nga avocat moom fi loxoom yegg yow détenu bi sa loxo mënu fa yegg. Ah, donc avocat day gën a gaawal yëf yi. Mm-hmm. waaw mm-hmm. day gën a yombal mbir yi tamit bu baax a baax. Mm-hmm. donc bu fekkente ne nit ki demande na liberté provisoire juge d'instruction bi euh, nangu ko. mën nga def recours ñu dem chambre d'accusation bu chambre d'accusation d'accord ñu dem cour suprême parce que gis nañ fi ay kilifa yu bëri ay célébrités yu bëri yoo xamante ne bañ demandé liberté provisoire ci juge d'instruction bi juge d'instruction bi accordé wu ko ñu demee chambre d'accusation moom li yu bëri yu génn kaso chambre d'accusation moo lay libéré de la même manière également bëri ci ay célébrités yoo xamante ne da bañ def appel doo doo mën a génn. ah procureur. voilà donc loolu moo aju ci liberté provisoire. mooy bàyyib ndëgëndiku. bàyyib ndëgëndiku waaw léegi euh, liberté conditionnelle tamit euh, ci lan lay tënku xam nga maa ngi la doon balaa muy dem ci conditionnel Fatima. Mhm. provisoire léegi bu ñu la ko mayee. waaw euh, amoo droit defaat dara. cest di dire buñ la ko mayee ba nga génn. Mhm. boo gëstoo góor sax dañ lay jàppal indiwaat. waaw liberté provisoire bokkul ak contrôle judiciaire. ah bokkul mais waaw liberté provisoire juge bi la ko accordé juge d'instruction bu la may liberté am na possibilité révoquer ko jékki-jékki rek waat annulé ko nga dellu kaso ah am na ñu fi dal ok dal na fi Tahibou Ndiaye may nañ ko liberté provisoire mu dellu prison dal na fi Tahib Socé mm. may nañ ko liberté provisoire mu dellu dellu kaso cest à que condition yi la juge bi tegal boo ko respecté wul juge bi pour loi may na ko pouvoir mu mu révoquer mu révoquer Euh, juge d' mu révoqué liberté provisoire nga dellu kaso. mais dans la plupart du cas. Mhm. ñim am liberté provisoire ñëpp. Mhm. dafa mujjee nekk liberté définitive. nekk liberté Sénégal moom liberté provisoire égale liberté définitive bu ñu la ko xasee ba may sa fini. d' accord mën yoo xamal ne say mbir moom mooy kii. d' accord contrairement ak contrôle judiciaire. Okay. parce que contrôle judiciaire c' est une mesure restrictive de liberté. moo gën a tënku. Mm-hmm. liberté provisoire mm-hmm. contrôle judiciaire bu ñu la ko mayee doo génn tukki mm-hmm. sa passeport juge bi daf koy confisquer tous les quinze jours wala tout chaque mois da bi signer cest à bi mooy ah. na la ne chaque mois nga ñëw signer wala tous les deux mois wala tous les quinze jours nga ñëw signer moom mooy fixer périodicité bi voilà moo leen di daw voilà amoo droit possibilité aussi Mm-hmm. def ay déclaration publique donc contrôle judiciaire ak liberté provisoire daanaka ñoo d'accord mais seen différence mooy contrôle judiciaire moo gën a tënku liberté provisoire mën nga voyager mën nga génn réew mi mais contrôle judiciaire tu es obligé loo ciy def rek mm-hmm. foog mu ànd ak ndigalu attekat bi waaw donc loolu mooy différence entre liberté provisoire ak contrôle d'accord ak contrôle judiciaire d'accord Fatima yaa ngi woon maa ngi woon ci mm-hmm. te ni ñuy faral di ko may daanaka mooy détenu yi nga xam ne la leen dese euh, Pape bu mën ne bu bariwul it la leen dese ci kaso bi yàggul. Mm-hmm. wala it sax ñenn ñi di euh, naan euh, ku ci ku ci ku ci sa chance nekk. yaay génn wala sax ñu mën la ci jàppale wala nga xam ci li mu munti mu nga génn ci ci kaso bi ci. grâce présidentielle. waaw loolu loolu am na solo Fatima dinaa ci dantu ma profité tontuwaale benn euh, laaj boo ma laajoon sànq ci liberté provisoire balaa ñu koy génn dem ci grâce ak yooyu. alors xam nga maa ngi la doon wax ñi nga xamante ne ñoom ñoo mën a am liberté provisoire. ñi ko mën a am. détenu provisoire buñ la atteegul. Mhm. mën nga am liberté provisoire. buñ la attee. Mhm. mettre affaire bi en délibéré verdict bi génnagul. Mhm. avocat yi am nañ possibilité demander liberté provisoire. d' accord day am. waaw parfois mën nañ leen ko accorder a. accorder mais. Mm -hmm. bu fekkente ne atte nañ la ba pare nag. Mhm. ci ngay soog a mën a bénéficier wu ci li ñu tuddee mode d' aménagement des parce que liberté provisoire bokkul ci mode d' aménagement des peines. d' accord mode d' ngi concerné ku ñu atte ba pare. d' ku ñu atte ba pare la mesure du mode d' aménagement des yi di kii mais lu jëm ci liberté provisoire contrôle judiciaire ñooñu ñeneen ñi lañ koy jox léegi boo ci ñëwee. mooy comme bi Fatima tudd léegi grâce présidentielle tudd na ko tudd na tamit également libération conditionnelle. Mhm. différence waaw entre libération conditionnelle ak grâce présidentielle lay ñëw loolu mooy libération conditionnelle mooy ku ñu àtte ba pare mhm. nga tëdd moitié liñ la condamné am nga possibilité génn loolu mooy libération conditionnelle d'accord dafa am ñaar wala ñetti condition yoo xam ne moom la loi bi teg pour képp koo xamante ne yaa ngi kaso nga am libération conditionnelle kon libération conditionnelle bu ñu la àtteegul mënoo ko am bu ñu la àtteegul mënoo ko am mënoo ko am na leer d'accord libération conditionnelle ak grâce ku ñu àtteegul bu mënu ko am ok il faut ñu àtte la ba noppi il faut que ñu àtte la jox la peine ba noppi waaw ok donc képp koo xamante ne sa mbokk nekk na kaso te àtte guñ ko ñu lay gëmloo grâce xamal ne loolu mënul nekk ok grâce ak libér libération conditionnelle ku ñu àtte ba pare moo ko mën a am ok liberté ak contrôle judiciaire ku ñu àttee gul moo ko mën a am wala ku ñu àtte ba pare te verdict bi génn gul ok léegi nag libération conditionnelle conditions yi mooy premièrement foog ñu àtte la ba pare waaw ñaareel bi nga tëdd parce que dafa am trois condition première bi mooy ñu àtte la ba pare deuxième bi mooy nga tëdd moitié peine bi par exemple bu ñu la condamné dix ans nga tëdd cinq ans mën nga am libéra libération conditionnelle ñu tëj tëj la quatre ans nga tëdd deux ans mun nga am libération conditionnelle ñu tëdd tëj la trois ans nga tëdd un an et demi mën nga am libération conditionnelle ñu tëj mhm. nga tëdd six mois mhm. libération conditionnelle daal deuxième condition bi mooy nga tëdd moitié liñ la tëj troisième condition bi nag mooy nga am bon conduite en prison. bonne conduite mooy nga nekk respecter règlement ah, intérieur respecter règlement yi. intérieur bi prison bi. ok bañ a xeexant garde. Mhm. bañ fa am problème. Mhm. bañ a respecter appel yi et tout identification lépp loo xamante ne daal am na règlement intérieur prison bi nga respecter ko. Mhm. nekk fa bokk ci daayira intérieur respecter règlement intérieur lu am. am na ay daayira foofu am na ay daayira waaw. bokk ay daayira lépp am na fa gis nga ni nga nekkee ci entreprise ni di jëmelo di liggéey waaw am fi dossier boo xamante ne lu am dañ koy noté ci sa dossier waaw bi nekk biir prison tam c'est la même chose ok ça ne veut pas dire que atte nañ la ba pare que yow c'est fini de sa comportement biir prison hmm. day jouer ci sa dossier ok mën nañ laa atte tëj la dix ans wala tëj la kaso giiru dund hmm. nga am comportement bu rafet biir prison respecter réglement intérieur loolu jouer ci yow ba ñu wàññi la loolu mën na nekk mën na nekk ok effectivement waaw liberté ban nga mën a am. comme génn. waaw maanaam euh, melokaan bi yar geek. Euh, teggin gi waaw ci am solo. Eh. oui daf ci am solo moo tax bu ñu la tëj 10 ans rek nga ne non wala ñu tëj la kasu gir dund nga ne non man sa fini amatuma lu may perte di def loolu neex. nga ni sa àdduna yàqu même bu ñu la attee ba pare. Mhm. sa comportement biir prison. Mhm. day jouer ci sa dossier parce que en fonction de ni ngay comporté ci biir prison ñoo la ñuy xool parce que dafa am benn juge boo xam ne bu ñu la attee ba pare moom mooy saytu. ñi ñu atte ba pare xool ndax yaru nañ ñu war leen atteel kooku la ñu tuddee juge d' application des mm-hmm. juge d' application des waaw kooku moom du interveni tant que atte wuñ la ba pare. ok si lay ñëw na xool ndax yaru nga kaso ndax respecté nga règlement intérieur est-ce que de ne ko ci prison bi di déconné di jàppante garde yi di xeex di def naka su dul noonu. kooku mooy juge d' application des moom balaa muy intervenir ñu àtte la ba pare te sa euh, euh, yaru biir mm-hmm. la mën a joué nag ñu lay wàññil di la wàññil di la wàññil di la wàññil ba ba ba nga jékki-jékki rek génn prison. ok nga génnaale sax ci euh, grâce. waaw présidentielle ndax euh, ñu bëri dañu naan dafay am kumba am ndey kumba amul ndey ci grâce présidentielle waaye nag ci comportement yi dafa mel ni def ci joué. effectivement ah, grâce kon du kumba man pour man grâce dañuy. déedéet du ku mu neex nga am ko de. libération conditionnelle ni mu amee ay ay conditions. waaw ah. grâce présidentielle tam dafa am ay condition pour nga am ko man grâce la rek. te xool boo xoolee grâce. moo gën a dañuy tànn dañuy tànn rek. déedéet. ah dafa dafa am une sélection très rigoureuse ah segg bu méttee métti la pour nga am grâce ah bon te grâce moo gën a jafe am libération conditionnelle xam nga libéra libération moom yomb na tëddal ah. moitié peine am bonne conduite prison ah, mais mais grâce présidentielle ah. la première condition mooy dañ lay war a atte ba pare ku ñu mm. atteegul munoo am grâce munoo am grâce la deuxième condition mooy bonne conduite mooy li ñu tuddee des gages sérieux demandement des gages de resocialisation ok loolu mooy maanaam mm-hmm. nga wane preuve ay firnde ay la bàyyee nga doo defaat lu lay delloo si biir kaso hmm. loolu ci condition grâce la bokk loolu la ñuy wax des gages d'amendement ok les gages d'amendement waaw donc première condition grâce foog ñu atte la ba pare mhm. deuxième condition foog nga am lu ñu tuddee gage d'amendement wala gage de resocialisation ok yaa ngi may dégg mhm. troisième condition mhm. dafa am délit wala crime yoo xam ne soo ko defee mënuñu laa may grâce ah loolu la ñu tuddee les délits et les crimes non éligibles à la grâce présidentielle. yooyu yooyu est-ce que mën nañ ko xam. voilà. Mhm. léegi nag mbir moomu nag. nekkul loi moo prévoir loolu. Mhm. mais politique criminelle bu Sénégal moo ko tënk. ok du loi moo ne ku def lii mënoo am non non non ñëpp mën nañ ko am. ñëpp mën nañ ko am délit wala crime boo mënti def lu mu rëy rëy rëy ci bëtu nit ñi mën nga am grâce. ok loi bi moom loolu la wax. mais ci application bi. Euh, waa ministère de la justice à travers direction des affaires criminelles et des grâces. seen politique criminelle bi nga xam ne définir nañ ko ñoom. ñoom ñooy xool par exemple mën nañ seetloo ne jamono ji kat accident yi dafa bëri te ñi ciy dee dafa bëri. Mhm. ñu ne kon ku def dee ku ku rey euh, fii accident ba dee si bu ñu la ci tëjee mënoo am gi. vol de mhm. bétail dafa bëri. waaw politique criminelle bi dugal ni képp ku ñu déclaré coupable condamné la pour vol de bétail mënoo am grâce ñu seetlu ne rey ji dafa bëri ñu ne képp ku rey mhm. temps yi Mm-hmm. mënoo am grâce cest à ko que mm-hmm. politique criminelle bi moom moo koy fixé mais mm-hmm. loi bi moom waxu ko loi bi waxu ko waaw ok loi bi moom neewul ne benn ku def lii wala def lee mënoo am grâce mais politique criminelle bi moo koy mooy maanaam nekk bi nga nekk kaso voilà léegi fi ñu toll nii nii nii actuellement nii te politique criminelle bi chaque année day renouveler yaa ngi fàttaliku détournement de deniers publics musul bokk ci délit yi nga xam ne dañ ne ku ko kuñ ci condamné mënoo am grâce mais jamono jiñ condamné Khalifa Sall waaw ci lañ ko dugal waaw bi ñu condamné Khalifa Sall waaw ci la dugal ni képp ku ñu condamné pour détournement de deniers publics mënoo mënatoo am grâce ok fii nii nii nii nii politique criminelle bi yi nga xamante ne teg na ko ne ku ko def mënoo am grâce mooy lépp loo xam ne jug dug jëm na ci wàllum terrorisme ok wàllum dégg maam ak yenn xeetu rey nit yi ak yooyu noonu mënoo am grâce waaw mais loolu mhm. politique bee ko def nii rek ah, mais loi amul benn loi Sénégal bu ne ku def lii wala ku def laa mënoo am grâce ñëpp ko mën am ñëpp ko mën am ki rey nit ak ki ñu déclare ko ñëpp ko mën am politique criminelle bi rek moom mooy fixé xaw ma ndax comprendre nga li ma bu baax grâce moo gën a jafee am libération conditionnelle moo tax ñiw jaar ci grace mu jafe ñëpp dañuy virer dem wuti libération conditionnelle parce que moo gën a yomb libération conditionnelle waaw libération conditionnelle ministère de la justice moo koy joxe. Mhm. à travers commission euh, pénitentiaire consultative ak yoon yaa tout benn commission boo xam ne administration pénitentiaire da ciy bokk ministère de la justice bokk ci mhm. procureur bokk ci et cetera donc ñoom ñooy joxe libération conditionnelle tandis direction des affaires criminelles et des grâces moo koy moo koy moo koy piloté moo koy coaché. ok dafa am benn kuréel boo xam ni. waaw dafa am bu ci nekk da ngay joxe quota. da ngay da ngay en fait dafa da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay pour def sa kii comment dirais-je. ok euh, ko ci 37 prisons yëpp bu ñu recueillir dossiers yëpp. ah Sénégal nga ne ñaari prison la am. 37. 37 prisons. fanweeri kaso ñaar moo am Sénégal. ah bon. te région moo ci ëppale Dakar am na 8. prison juróom-ñetti kaso. Ah bon limal bankal sa baaraam. ma ma banque benn. rëbës. rëbës benn. Cap Manuel. Cap Manuel ñaar. pavillon spécial. ñett mooy bi nekk biir hôpital Dantec pour détenu yi ah, feebar waaw waaw waaw waxoon nañ ko bi passé. Sébi Xotaan. Sébi Xotaan am na kaso. muy ñaata. yaa ngi am 4. prison des mineurs bu aan. bu mineur bu ah, mooy bi nekk ci autoroute bi. mooy nekk ci waaw mooy moo tuddoon Forbe ci jamono. Forbe 5. muy 5. waaw. prison jigéen ñi nekk Rufisque. camp pénal camp pénal muy set ak prison jigéen yi nekk liberté 6 muy huit bi dend ak camp pénal xam nga liberté 6 ñaari prison moo fa am ah bon camp mooy bi ngay njëkk a jot mooy pour góor ñi mooy mooy pour boo ko bu ngande bi waaw mooy pour góor ñi boobooy camp mooy camp boo ko weesoo am na bu ndaw boo xam ne nit ñi duñ ko seetlu prison bu ndaw la boobooy pour jigéen ñi moom mooy maf waaw maf maison d'arrêt pour femme huit prison yooyu ñoo nekk Dakar dogon Dakar am na kas juróom-ñetti kaso yu fi ne mais 37 prison moo am ci Sénégal 37 prison moo am ci Sénégal voilà donc hmm. grâce ni muy demee mooy prison bu ci nekk da ngay proposer say dossier ah. léegi administration pénitentiaire centraliser ces dossiers là defar dossier état yi et tout ça là hmm. transmettre ko direction des affaires criminelles et des grâches ñoom tam ñu saytu xool dossier defar projet de décret projet de décret. yóbbu ko ci président de la république mu signé président moom signé rek la léegi président moom buy signé du liir tur yi du liir du vérifier duñ ko woon photo duñ ko woon dara lijjantiw ko sax ah bon signé rek direct pour man président day xamul dossier yi xamul ku def lii xamul ku def laa moom xamul nit ñi day jàpp kat kuréel ga ko war saytu saytu na ko ok day ñëw rek signé ok xamul sax ñan lay mais scandale wuri jàll looloo ko indi xam nga Wuri Diallo dañ ko gracier te xam nga léegi maa ngi lay wax ci condition yi pour que nga gën a am grâce faw ñu atte la ba pare. ok Wuri Diallo dañ ko gracier te atte guñ ko. xam nga loolu scandale la. non loolu loolu loolu. léegi président moom bañ koy yóbbul moom bu xam xam mënul xam. Mhm. day jàpp ne kuréel gi ko war a saytu saytu nañ ko. moom dafa ñëw rek signé alors que atte guñu woon Mamadou Wuri Diallo Mamadou Wuri Diallo benn détenu la boo xamante ne dañ ko jàppoon pour trafic de médicament. trafic de médicament. waaw mais maanaam di dugal ay garab ak yooyu noonu. ci suuf voilà voilà. loolu hmm. loolu lañ ko jàpp léegi bañ ko gracier nag moom ca la dawee génn dëkk bi boobu léegi ko teg loxo après cour d'appel bu Thiès dafa annuler le décret président de la république jëloon foofu sax am na coow li fa amoon parce que dañ naan euh, un juge mënul annuler dogal bu président jël décret et tout ça là mais en tout état de cause cour d'appel bu Thiès dafa jël ay responsabilités am annuler présidentiel bi mayoon Mamadou Wuri Diallo grâce présidentielle parce que ñoom dañ ne woon mënuñu woon comprendre mhm. koo xamante ne dañ lay toppee lu garaaw lu toll ni trafic de médicaments ak mhm. quantité bu important bi ñu ko jàppee ñu dem di ko gracier alors que atteeguñ ko dëgg la waaw dëgg la en fait Wuri Diallo dañ ko atte woon dañ ko njëkk atte tëj ko cinq mu def appel mhm. xam nga dañ la war a attewaat ah. donc boo defee appel mënu am grâce ok parce que dès l'instant que def nga appel rek condamnation bu njëkk bi day dàqu bu ñu la condamné cinq ans wala dix mhm. xam nga da nga def appel pour ñu attewaat la ah. léegi am atte bu njëkk bi konteetul nekkaat nga innocent foofu ok ba keroog ñu lay attewaat. da ngay nekk innocent. waaw ba keroog ñu lay attewaat. d'accord di la déclarer coupable. d'accord donc loolu moo aju ci grâce présidentielle. Mhm. may fàttali ni grâce présidentielle amul fay. amul joxe xaalis. amul neexal. ku mu ah. neex nga ñaan ko gars yi nag ñooy sedd xool ndax yow mi ñooy mhm. segg xool ndax yow mi mérite ku mu neex ñu may la waaw Pam Ndiaye dànq ngir dànq amul fay maanaam dànq danq non xam nga ñun njaayee ni tur yàlla la ñuy dundee xam nga njóobeen itam Fatima njóobeen itam foog ñu wax ci quoi maa ngi seen awa Diop na la ci biir studio bi ñu ngi lekk yi dànq yi. non non ni daal vraiment xam nga dànq gi. Euh, dànq dafa baax Ndiaye. Ndiaye dànq dafa baax de. lu muy faj. ah Ndiaye dànq li muy faj bari na de. ah comme lan. day yokk lépp. comme lan lépp lan. ah lépp kay. lépp lépp lan ak lan. wala <laughs> awa Diop. lan ak lan lay yokk. maanaam sa gis-gis. ak lan sa bët yi day leer. nga mën a xool. kooku li muy def siñ noonu lan la gisuma ko bu baax. maanaam sa gis-gis day leer. Uh-huh. waaw bu fekkoon sa bët dafa lëndëm booy lekk dànq sa gis-gis day leer kan mooy banque concom bi Fatima Sey Ndiir la moo ko fi indi mbuusu dànq gu bari goo xam ne la fi indi Fatmata Sey Fatmata Sey Ndiir mbuusum dànq gu bari goo xam ne am na suñ tekkil am na suñ bu muy def noonu di waneen dànq daf njir dafay nee na sa bët day leer maanaam da koy day dëgër boo koy lekk say bët day leer loxom bi muy banque noonu lu muy wane waaw concom bi muy banque noonu bëtam yi lay wan dana ne bëtam boo koy lekk say bët day leer ah. maanaam da dëgër waaw boo nekkoon góor bu nooy mhm. da ngay dëgër këcc dëgër ci ban fànn. waa dëgër rek moo nag comme booy fubal ñu tamponné la doo daanu da ngay dëgër. ah ah. ah. dëgër mel mi dëgër ngay fubal ñu tamponné la nga nga dëgër doo daanu comme bu dóor la épaule nii. Mhm. doo daanu. da mhm. ngay dëgër. damay laajte rek xam nga ñëpp ah. dégguñu daaj. am ñoo xam ne foog nga jaar ci digg xam nga fubal fubal tey par exemple euh, bu fekkee euh, am na ñoo xamante ne xam bu ñuy fubal bu ñu leen di épaule ñuy daan day gaaw a daan mhm. bu ñu leen di dóor épaule rek ñuy daan waaw léegi nag dànk boo koy lekk ngay dëgër doo gaaw a daan maanaam mën nañ la dur épaule sax doo daan booy football da ngay dëgër quoi. ok tu vois tu vois voilà. salaamaaleykum yow la kat. dégg naa la yow la kat. yaa tijji woon parenthèse boobu ci suñu biir émission. <laughs> Eh, Fatima fan la ñu tolloon Moustapha Diop foog mu mise à yow. <laughs> sama xarit la. yu yi ngay wax ci rajo bi foog ñu mise à pied la. <laughs> Fatima Fatima fu ñu tolloon. ñu ngi ñu ngi dañuy romb foofu dama bëggoon ñu ñëwaat ci euh, liberté provisoire Pape c'est important parce que dafa am ku ko laajte léegi xam ne ni liberté provisoire wax nga li mu làmboog léegi ak la muy àndal waaye dañu gis ñenn peut-être euh, ci ay euh, kilifa bu ñu génnee mm-hmm. maanaam mooy seen maanaam dootuñu duggati te bu ñu génnee ca lañ leen jàppee woon lu flagrant la jënd na sax exemple comme fal euh, Fall Bougazelli mi ngi euh, liberté provisoire la ñu ko mayoon bu ma jumul génn na. Mhm. mi ngi topp ay activité mais gisatuñu ama amatuñu benn suite euh, ci ay mbiram teewul la ñu ko jàppee woon lu rëy la lu flagrant loo xam ne Sénégal yëpp ci tegoon seen bët. waaw xam nga maa ngi la doon wax léegi ne la Sénégal moom liberté provisoire égale liberté définitive am na ci ñoo xam ne bañ leen ko xas maye la ñu dégg seen dossier duñ sax xamati fa mu ndax seetal nañ leen wala dañ leen ci toppati duñ sax amati information donc loolu loolu da ciy am mhm. euh, ñaareel bi mooy am na ci ñoo xam ne dañuy laqatu ci ginnaaw feebar parce que dafa am lu tuddee liberté provisoire pour raison médicale maanaam yoon dafa ne bu imaginaire parfois day am am na ñoo xam parce que la logique des principes voudrait ah. moo la mayul nga nekk ci kaso bi. ba ñu ah. libéré la. Ah. soo wéree nga dellu kaso. xel mënoon na. la xel loolu la xel mën a mais tel n'est pas le cas nag dans la pratique. ok boo ko xasee ba xam moom. Mhm. boo ko xasee ba am c'est fini bu weesoo ñaari cas yi mu la fi tuddal sànq. Mhm. amul beneen cas ko nan koo xamante ne. Fatima. dellu na ci kaso bi ah? yaa ngi baax maa ngi baax waaw kay Pape Ndiaye nga ni <laughs> waaw mhm. donc euh, mi ngi noonu la demee daal waaw loolu moo aju ci li nga xamante moom mooy liberté provisoire bi concerné euh, célébrité yi tey nag moom c'est la saison des libertés provisoires nag moom en temps yi ah waaw c'est la saison des libertés provisoires ok man sax sànq yaa ngi wax ci euh, kii kii li président di def grâce présidentielle grâce présidentielle mais mhm. grâce par kañ lay am quatre fois lay am ci année bi quatre fois la dafa am date spéciale. bu muy am dafa dafa am ay occasion yoo xam ne président de la république ci lay gracier. muy ban ak ban ak ban muy Korité. Korité Tabaski. Tabaski feetu 4 avril. feetu 4 avril. ak bu ñu duggee ci at mu bees mi nouvel an. nouvel an waaw quatre occasions yi rek la président di gracier. ah Pâques duñ ci gracier tamit. waaw am na sax ñoo xam ne ñi waa waaw xam nga Pâques ak pratiquement 4 euh, avril sore wuñ. wa waaw waaw boobu la. même bi la quoi. am na nag ñuy plaider pour que ñu dolli ci yeneen occasion lu ci mel ni tamxarit par exemple. tamxarit ak aussi lu mel ni diggante diggante tabaski. ak at mu bees mi dafa sore. parce que boo xoolee ñi ngi tabaski woon ban mois mois de juillet. waaw te nouvelle en kañ la janvier donc juillet ba janvier dafa sore moo tax ñu bëri gis ne foofu diggante boobu mm-hmm. noonu président war na fay mën a gracier daal gracier daal du leen mm-hmm. màggal war na gracier may nit ki chance mu mën a màggal mu gracier mm-hmm. gàmm mu gracier appel mu gracier dafa war a yokk gracier bi waaw boole bi daf ko war a yokk boole ci feet yeneen feet yi tam parce que feet yi bëri na feetu chrétien yi tamit waaw feetu kër ay touché mu gracier Pentecôte mu gracier. parce que bëri na bëri na ñoo xamante ne en tout cas férié waa gracier. <laughs> boobaa su bu yàggee nag moom. ah mais dafa war a yokk grâce mi. bu nag moom grâce doon gerte caaf. bu ñu fekk ci mbedd mi mais dafa war a yokk mais dafa a yokk. ko war a yokk loolu d'accord naa ci ak yow. li ñu gracier dafa tuuti trop. te bëri na ñu nekk ci kaso bi. mérité ñu gracier leen may leen pouvoir déjëme la am na ci détenu yoo xam ne man sañ na ma dóor sama loxo ci kaamil ne ñii bu ñu leen bàyyee du ñu delluwaat kaso dëgg la am na ci ñoo xamante ne sañ naa taxaw ni ñii bu ñu delloo kaso ma bàyyi métier journaliste parce que xam ne ñii erreur moo leen yóbbu mm. kaso te bu ñu leen bàyyi dootuñu defati mukk lu leen yóbbu kaso dëgg la ñooñu nag dafa jaadu vraiment ñu may leen deuxième chance ñu mën a vraiment te ñu ngi defaroo sax ci ci kaso bi parce que kuréel yi nga fay gis da daan gis koo xam ne ah. du du julli ah, xamul jàng xamul lu lu lu lu kaamel yi lu ci nekk waaye bu mm-hmm. xasee ba dugg kaso ndeysaan da ngay gis seen comportement ni changé ñoom seen biir di jàppalante di mm-hmm. jàngale di di def yoo xam ne daal amaana ñooñu boo ci saytoo ñenn ñi rek boo mm-hmm. xoolee boo leen génnewee dina la leer ni euh, erreur moo taxoon ñu dugg fa te changement mën na am dëgg la donc yooyu it euh, mën nañ di leen bàyyi xel rek ndax ci ñun la ñu bokk aussi voilà digital bi nit ñi ñu ngi réagir wala ñu ngi ñu ngi réagir ñoom ñoom euh, ñu ngi ci waa biti réew aussi pareil ñoom ñu ngi nuyu Rahim Lo ci ndax moom moom macha allah. waaw ah, loo ndaam siré voilà ñu ngi koy béggee. leneen ci ci ci liberté yi ba tey euh, melo. Mhm. laaj bi ñuy laaj maanaam mooy euh, mbirum liberté provisoire. nee nañu ah. yaama neex da cee am. Mhm. yaama neex. waa wala jaay amu ci. effectivement am nga jënd ko. non am na ci. nga joxe xaalis bu bari ñu bind la sa tur ci kaw. en fait man fi ma yaama neex bi may wax mooy. Mhm. bu fekkente ne opposant wala activiste moo ko ñaan ñu bañal ko ko bu fekkente ne ku féete ci nguur gi bu ko ñaanee ñu ko ko. côté boobu laay waxee ni yaa ma neex la ko yaa ma neex gi. waa même bu fekkente ne am na acteurs yu dénoncé lu ñu tuddee la marchandisation de la liberté provisoire. ci wolof et des ci wolof maanaam liberté provisoire ak grâce présidentielle yi ñuy jaay. waaw ah. waaw am na ñoo xamante ni ñu ngi koy joxoñ baaraamu tuuma. yi ñuy jaay waaw mais man bi may gën a wax mooy en fait le fait que bu fekkente ne activiste la wala opposant mhm. ñu bañal ko liberté provisoire bu dee ko bokk ci nguur gi bu ko ñaanee ñu may ko foofu laay waxee en parce que bëri ñoo xamante dañ leen tëjoon kaso ñu bokk ci nguur gi mhm. ñu bàyyi leen ci liberté provisoire au mhm. même moment ñeneen ñi ñeneen ñi bokkal dossier sax ba léegi dañ leen di dañ leen dañ ci kaso bi libéré guñ leen day day tàbbi euh, suite du alors ah. wax nañu liberté provisoire wax nañu contrôle judiciaire ah. wax nañu libération conditionnelle ah. wax nañu grâce présidentielle mais am na bu des boo bay baan amnistie amnistie waaw man amnistie ci dossier Karim laa ko lu ma koy dégg waaw amnistie waaw dama koy dégg ci jamonoy dossier Karim Wade bi am na ñu naan amnistie am ñu naan amnistie amnistie mais nag moo bu naqaree prononcé waaw Fadima waxal moo bi <laughs> Farima waxal moo bi. amnesty. <laughs> ah wala du noonu. Eh, Ndiaye moo bu naqaree prononcé la nag. am nis am. boo ne amnesty. waaw ah. hmm. loolu organisation droit de l'homme mooy amnesty international. amnesty ne amnesty. waaw ah. loolu organisation mais bii tax ñuy wax am nis. am amnesty a ah. m. Mhm. n. Mhm. i. Mhm. s. s t t e. i e. amnesty école école noonu la woon. voilà <laughs> noonu la école taa école loolu loolay syllabe ah. amnistie la ñuy wax pas amnistie mais amnistie. amnistie. voilà amnistie. amnistie. amnistie nag moom. mooy lan ça porte sur des mooy maanaam. Mhm. ça porte sur de faits xam nga grace ay libération yu ñu fi wax nii yëpp. Ah. nit a koy bénéficier nit lañ koy nit la ñuy gracier nit la ñuy may liberté provisoire nit la ñuy may libération conditionnelle. Mhm. mais amnistie nag moom kenn du ko may nit. Mhm. mais ça porte sur des faits amnistie mooy effacer. effacer waaw. ok effacer. waaw ay faits yu amoon. ñu effacer ko. fi ñu toll nii bu am amnistie waroon am duñ ne dañuy amnistier Karim Wade dañuy amnistier Khalifa Sall. dañ naan dañuy amnistier lépp lu jëm ci moomal gu lewul goo xam ne amoon na fi diggante at sàngam ba at sàngam. Ah, loolu mooy amnistie amnistie ça porte toujours sur des faits et non sur des personnes. d' accord d' accord d' accord loolu la faits yi la ñuy effacé. léegi nag boo effacé faits yi képp ku mu impliqué woon daf lay. daf ciy dugaale. ok c' est comme régime Ablaye Wade bi mu ñëwee am amnistie lépp loo xamante ne jëm na ci feewu assassinat maître Babacar Seye. ok léegi nag boo effacé fee. Mhm. mboolem nit yu ñu ci tuddoon taqal leen ci ñoom yëpp dañ ciy duggaale. dañ ciy dañ leen di effacé. voilà ok donc lii yëpp bokk na ci mesure yi nga xamante ne mesure libératoire bu ma ko mënee tuddee noonu entre guillemets maanaam. nit ki nekk kaso ban yoon nga mën a jaar ba génnaat li ñu fi tudd yëpp moom moom la ñuy moom. ci la bokk ci la bokk. mooy ñi ñu fi bari na Sénégal quand même. ah am amnistie. li mu fi am non bëriwul nag. bariwul bëriwul de. bëriwul waaw bëriwul de. ok li mu fi mës a am moom bëriwul bu weesoo ba fi Ablaye Wade defoo moom fàttaliku ma fi beneen ok nit ñaa ngi wax nag lu jëm ci kaaw Karim Wade ak Khalifa Sall. ok euh, mi ñi ngi naan sax bokk na ci chantier prochaine législature quatorzième législature bi war a ñëw. mais on verra war nañu ko war nañ ko war nañu ko leeral. parce que mhm. gis nañu seen taxawaay ku ne yaa ngi ràcc jëmale sa boor di xool nooy euh, jéem a euh, wéyalee ci sa carrière politique. Mhm. mais la présentement sénégalais ba tey amuñu lu leen leer ci lu ñeel dossier Karim wadd ak xalifa Sall. gis nañu nag euh, semaine mhm. passée euh, Pape euh, cour d'appel bu Paris daan état du Sénégal ci lu ñeel mbirum Bibo Bourgi mhm. ci niñ leen jàppee woon ci ci ndax xawma su ma juumul ñoom tëjoon nañ leen 6 ans ci lu ñeel boobu le dossier waaye bu ñu demee ba wëlbatikuwaat cour d'appel bu biti réew bu Paris ñëwaat daanaan état du Sénégal loolu it mhm. lu lu doy waar la ci justice boo xam ne nee nañu pays boo xam ne pays bu bu indépendant la mhm. nga ñeneen ci sa nawle justice daanaat la ci li nga xam ne yow da ko àtte ba ni nii la demee mhm. waaw saa yu Sénégal àtte pare bu ñu demee bitim réew ñu ne àtte bi baaxul jaar yoon waaw la moo tax loolu c'est exactement ce qui se passe ci dossier créé waaw parce que parrain saa yi ñun suñu vie dañoo aayul wala non ay nañ de. ah bon waaw kon eh. la moo tax ñuy aat yaati côté ay moom ci côté magistrat sénégalais moom. Hmm. Hmm. kenn la naatable ko. ay problème la ñu mën amul benn fonctionnaire de l' état bu ko mën. buy traité plus de cent dossiers par jour. ah bon magistrat li ñuy def ñoom rek ko ko mën de tous les fonctionnaires de l' état. ok volume de travail bi magistrat di abattre amul beneen fonctionnaire de l' état bu koy abattre. Hmm. mais ñoom am ci ay xarit baax na de ah. <laughs> ah <laughs> <laughs> après nga jox ma ay turu magistrat ban fonctionnaire de l' ngay gis muy traité cent dossiers par jour cinquante dossiers par jour plus de soixante dossiers par jour ban fonctionnaire de l' nga koy demal tribunal ñaata nit la ñuy par jour da gis dem ci cabinet d' gis dossier juge bu yore deux cent dossiers trois cent dossiers le nouveau doyen des juges bi remplacé Samba Sall kooku bi mu ñëwee xam nga <laughs> minimum bi laa lay jox de. minimum huit cent dossiers. non non Ndiaye gaw ma. ah loolu la moo taxoon may wax <laughs> waaye waa tribunal yi may dégg. xam may fay ma gëm la. waa tribunal ñaata nga yor foofu. xam nga waa tribunal ak may dégg. waaw hmm. amaana sax moom mi may waxal sax mu ngi may dégg. Hmm. ñoom xam nañ li may wax. huit cent. loolu ban fonctionnaire de l'État moo ko am. nga war a traité huit cent dossiers ci année bi année bi boo ci génnee samedi ak génnee ci férié ñaata jours a ciy des. te dossier bu ci nekk impliqué am ci dossier yoo xamante ne ay nit ñuy rëcc ñu leen di recherche di leen wër gisaguñ leen tegaluñ leen loxo moo tax ma ne mhm. magistrat mhm. volume de travail bi muy abattre au quotidien amul mhm. benn fonctionnaire de l'état bu koy abattre d'accord donc euh, mi ngi noonu daal mbir yi mbir yi noonu la noonu la noonu la en tout cas en tout cas ay nit ñu baax lañ waaw léegi nag waxtaan bi dinañ ko yeggali gën a xóotal ci aménagement mode d'aménagement des peines parce que am na yeneen ak yeneen yu xam nga ni di jëmelo boo nekkee ci prison bi loi may na la nit ku ñu tëj kaso. Mhm. nga xëy 6 heures du génn dem doxi sa soxla dugg ci dëkk bi dem sa ko def dem liggéey def la neex. Mhm. ba 22 heures nga ñëw fanaan si ci kaso bi. Ndiaye yow lay wax ni. mën na ne loo am may na ko nga ni. nit mën nañ laa tëj kaso. waaw. ñu may la. waaw nga xëy suba génn. dem nekk ci sa yitte bu la neexee nga dem liggéey bu la neexee nga dem mat sa jaay bu la neexee nga dem sa kër toog fa. ba guddi nga ñëwaat tëdd ci kaso bi fanaan. waaw Ndiaye loolu ban façon peine la. loi la mode d'aménagement des peines. mais amul ci ci semi liberté. ci kii loolu la ñuy wax semi liberté semi liberté waaw. Eh, mais am na ci ñoo xam ne pour pour guddi la am na ci ñoo xam ne mën nañu génne ci kaso yi guddi. contraire bi dem seen kër le contraire bi voilà. waaw dem seen kër yi euh, fajar bi ñu ñibbisiwaat. waaw mais Ndiaye loolu léegi. Euh, semi liberté ban kaso nga ci kaso yi la. ma ñi koy appliquer ay nit. Hmm. da dul siiw rek da gudul yëg rek. guddi ñu dem tëddi. waaw mën la fajar 6 heures du matin nga xëy génn guddi nga ñëw fanaan si kaso bu gëboo génn def bu la neexee mhm. guddi nga ñëw tëdd si waat mais du ñëpp lañ koy may de dafa am ay conditions. li ngay wax nii doy mm, waa prison yaa administration pénitentiaire ñi ngi may dégg. Mm. loi la loi moo ko fi indi loi bu boo xam ne ñu ngi ko voté depuis 2001. mooy loi sur le mode d'aménagement moo tax mode d'aménagement tamit DPM dinañ ci waxtaan te li ma la wax nii mu jaaxal la lenn képp la ci am na yeneen ak yeneen yoo xam ne bu ma la ko waxoon rek ma naan c'est pas leen ko joxee euh, dañ leen takkal ay bracelet wala mais la moo tax duñ daw détenu de confiance yi lañ koy jox nag ah. dafa am ñu ñuy tuddee détenu de confiance dañoo dem ba wóolu leen mm-hmm. voilà dañuy génn di dem ci biti di ñëwaat loolu la yaakaar la moo tax ni ñu wóolu xam nga euh, di jëmelo yow ñu condamné lañ deux ans wala dix ans yaa may dégg. waaw ñu condamné la fukki at. mu des la une semaine yow di nga def erreur naan da ngay jéem a évader wu rëcc. non non non non yëfu def la. da ngay toog gerte ñu condamné la dix ans. nga tëdd neuf ans onze mois mu des la un mois. Mm-hmm. di nga def nga dof dof naan da ngay daw. après nga nekk fugitif non. kooku bu ñu la mayoon nga dem fépp ci kii bi sax bu tëdd jotee da ngay duggaat ci kaso bi. am na ci kilifa yuñ ko fi yuñ ko fi. amal ah, naa ñooñu guddi lañ l di bàyyi ñu génn. ah, ah. ah Ndiaye li ngay wax ni loi bi nag kon. dëgg la war na war na tamit li ma fi li ñu fi doon wax keroog. mais li mooy solo su waxtaanu tey bi. yi yii yii ñuy loo nit ñi umpale. ci justice ñu waxtaane ko ñoo xam nga lii ko la ko waxoon. doo Ndiaye yow kay chaque jour nga wax fi loo xam ni moom nopp nga koy door a dallu. ma ne la bi ma la ci wax nii nag moo ci gën tuuti. li ma la ne détenu mën nañ laa may nga génn suba guddi nga ñëw fanaan si ci kaso bi. Mhm. moo gën a tuuti am na yeneen ak hmm? mais loolu moom liberté la loolu loolu liberté la ma ni la loolu libre la da ngay libre quoi loolu. Mm, mode d'aménagement peine yi dinañ ñëwaat waxtaane ko. Ah, faram waaw ñëw ñu yeggale ko. faram faram fàcce ko bu baax waxtu wi tënk nañu. boole ci ak li nga waxoon ci procureur mooy procureur pouvoir procureur. yooyu tam dinañ ci ñëw seen ay pouvoir ñoom waaw. ak boole ko actualité judiciaire. waaw même président kii sax ñi nekk ci kaso yi di ko jiite. Mm-hmm. ñoom ñëpp laan nga mën. lan mooy tax nga nekk ko waaw. waaw ak ñi toog ci rajo yi di génne gros mots yi. yooyu yëpp tam dinañ ko waxtaane waat <laughs> Eh, Maawa Ndiaye ñu ngi koy nuyu keroog maa la koy wax Maawa Ndiaye. Ah. Maawa Ndiaye waaw ku ku ku ku sopp ku sopp ku sopp li ngay def la. à chaque fois daf koy wax naan mm. chaque fois damay su may déglu Ndiaye. Euh, damay xam lu ma xamul woon ma ko mm. bëri nga ci morom man dama koy kii nii rek mais mm. mooy sama professeur xam nga dama koy tàngal xam nga mais pourtant wax ma benn goro moo li ma fex yëpp ay wax yu baax la waaw ay wax yu baax la yow yow bitee ngi lay xaar waa direction des programmes ñu ngi lay xaar sama dànk laay jël takk ko <laughs> maa ngi waaj a wàcc. nuyul ñu Katim Cissé. Katim Cissé sa xarit. Mm, waaw sama ah. xarit waaw ah, yow léegi mën nga jaaree tàggatoo. mi noonu gërëm la sa verre bu baax. dégg ah Aley Kaza. verre fii la ñu waroon tem nag. Aley Kaza verre lu jaroon tem la nag. Aley Kaza c'est dommage que heure bi jeex na. Mm. oo jub yow. Walfadjri dafa neex. da ngay toog uh-huh. Allez hmm. Casa table yi xam nga moom solo. Allez Casa <laughs> tey de boo demoon Allez Casa moom instant yi moom da ngay dugg rek bokk ci supporter yi. est-ce que duñu woo Gomis mu xool nu ma ci dugalee. <laughs> nuyu gërëm naa la DJ Melo. Uh-huh. gërëm mbokku internet yi doon uh, teewlu leeru jamono. waaw ah. rawatina auditeurs yi taximaan nit yi. Mm-hmm. ñu ngi leen di nuyu bu baax. ndax mm-hmm. ñoom it duñu koy faral di tardé. waa Gandiol it euh, ñu ngi doon teewlu ci euh, digital bi ñu ngi leen ni euh, jaajëfal bu baax Gandiol ah. Média mm-hmm. ak mbooleem détenu yi nga xam ne ñoo ngi doon déglu 100 pour cent justice Rahim Lo ñu koy gërëm bu baax ci digital digital loo ndam Siré Pape Ndiaye alors cant ngërëm ñeel na la waaw di joxe dig daje rek jotaay bii di ñëw. Ah. di gërëm bu baax a baax euh, mboolem ñi nga xamante ne saa su nekk rek ñoo ñuy teewlu di ñu bàyyi xel. Alima sa xarit mi ngi lay nuyu. Mm, waaw maa ngi koy fay lu bëri borom sant yàlla mm. couture ñu ngi koy fay bu baax a baax. Mm. di nuyu jaara xarit loo itam mi ngi lay nuyu borom bu la kan si jaara xarañ loo waa fayal ma ko maa ngi koy fay lu bëree bëri mm-hmm. mbooleem ñi nga xamante ñi ngi safoo leeru jamono fii ci biir réew mi ak waa bitim réew ñi ngi leen di nuyu bu baax a baax Ayda Sow mu ngi leen nuyu Ayda Sow soxna Ayda yow yow ah, waa ah, <laughs> fayal ma leen ñooñu moom xam nga yàllaa ma leen séddee ay dara karaara moom sama yàllaa ma leen séddee man moom yàllaa dogal rek ñu doon amee soppe ñu bëgg moom ma bëgg leen nag man dama leen a bëgg man ah. a nattoo. non gis nga ci dara du ci man te góor te góor góor daa war a bëgg jigéen. ndax góor su bëggul jigéen bëgg góor. dans le bon sens. <laughs> man Pape Ndiaye barke yàlla dama laa parce que da bëgg jigéen ba pare da ngay jigéen ba pare da nga yërëm jigéen. Mhm. man daal loo xamante ni la charia terew ko lu diine terew. waaw ah. loi terew ko. waaw ah. carte carte carte blanche. dëgg la bëgg jigéen carte libre bëgg jigéen. ku bëgg jigéen da koy yërëm mm-hmm. ku bëgg jigéen doo toroxal jigéen te loolu xaw manqué ci dëkk bi nag mm-hmm. jigéen kenn du ko toroxal boo waxee ñu ne la da bëgg jigéen dañ koy yërëm fekk da ngay suivre li diina bëgg jigéen mm. <laughs> góor day daa baax de góor ñi dañu bëgg jigéen ñi jigéen ñu bëgg jigéen ñi ñu jër bëgg lañ soxna yi soxna yi dañoo jër bëgg de macha allah moo tax yàlla ne góor ñi ut leen ba ñeent di jaajëf ah, jërëjëf Njaay ba beneen yoon <laughs> jërëjëf cant ak ngërëm